رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الذي يخلق ما يشاء ويختار والخير كله فيما اختار نحمده سبحانه في حالة تضرع وعجز وذل وانكسار ونستغفره من كل ترفع وتصنع وعجب واستكبار ومن كل تقصير وشهوة وذنب وإصرار ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن كل الشرور والأشرار ومن السلب وسوء القضاء وشماتة الأعداء وال والغلبة والانتصار والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد العبد المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أقاموا الدين الأحمدية ونصروه ونشروه في سائر الأنحاء والأقطار ومن, ومن تبعهم بإحسان في سائر الأعصار أما بعد إلى كافة أحبابنا الذين سكنوا في عقل وغيرهم حيثما كانوا سلام كعرف الروض xadallahu tallu aman hamma baada alhijri lilcaashiqi alwaslu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wafaqana allah wa iyaakum lima yuxibu wa yarda wa daawa bimanihi qulubana almarda yalihi aliclaam bi anni mutaassifun gaayatan lima yabluguna daa'iman min suui tafaahumi baynakum wa bayna bacdi ixwaanikum wa jiiraanikum wa cashiiratikum wa wuquuci albacdi bi xawaatiri albacdi wala yazaalu cajabi min kasrati mubaalaati bacdikum bimaa yasduru min bacdin qawlan wa ficlan wa shiddati muaaxadati nnaasi bimaa yajri calayhim waqad calimtum anna alfaacila xaqiiqatan huwa allah wala yanbagi shakwa wala ictiraadu calayhi bal firruu minhu ilayhi fa innahu laa malja'a wala manja'a min allahi illa ilayh wa muaaxadatu alcaammati bimaa yajri minhum suuratan imma zulmun aw kufr la yuxaffifu alama albalaa'i cilmuka bilmubtali fa afridu lwijhata ila allahi waxtau nnadara amma siwaahu wardaw biqadaa'ihi tastakmilu raaxata fi ddaarayn wannaasu inda taxqiiqi fa matxuhum wa qatxuhum sawa fallahu aclamu bixaali cabdihi wa kafaa billahi shahida wa amma raddu sunnati muhammadin naam amma raddu sunnati nabiyi sal allah alai sallam wa tacnu fiiha fa amrun laa yashtagilu fiihi mutadayinun caaqil walaw kaana sabiyan wala ala man yaskutu an alfaacili wa tawa alxawda macahu fi fiihi raddan wa qabulan wa ixtijaajan kama qaala allahu taala wa ida raayta alladina yaxuduuna bi aayaatina fa acrid canhum xata yaxuduu bi xadiisin gayri fa ida hajaa bacduna bacdan وهو يجد مجالا واسعا لكسرة مساوئ من هجا وأراد الانتصار ولم يجد إلا الكذب فلا أرى إلا السكوت والتسليم فالناس كما تعلمون فيهم أقوياء علماء شعراء أهل ديانة وعبادة واستقامة وسلامة من العيوب ونحن بعكس هذه الأوصاف أو جلنا فلم يبق إلا الصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون inna allaha maa alsaabirin innama yuwaffa alsaabiruuna ajrahum bi gayri xisaab laa nihaayata limadaamika in arjacaka ilayk wala tafrugu madaaixuka in adhara juudahu calayk faddaaru annaaficu alxaafidu alraaficu almucti almaanicu huwa allahu tacaala والأنس به والأنس بالمخلوقات لا يكادان يجتمعان فهبوا ما سواه كأنه لم يكن ليصفوا لكم الوقت ويحصل لكم الأنس به an laa taziru waaziratun wizra uxra wa an laysa lil insaani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ajra al aza minhum li an laa tarkana ilayhimu bal lil ilaahi farkana wal naqul bi lisaani al xaali wal maqaali xasbuna allahu wa nicma alwakil xasbuna allahu wa nicma alwakil ولا يقترب يتقرب إلي محب بالانتصار لي من أحد في قول أو عمل fa inni xasala lil ilmu yaqinan an laa yadurrani maxluqun wala yanfacuni fala fa rajai mucallaqun biman laysa lil anbiyai wal awliyai illa su'alu fasalu llaha al imana wattaqu llaha laallakum turhamun irhamu man fi l ardi yarhamukum man fi sama wa maa taraka min aljahli cheyan man araada an yuzhara fi lwaqti gayra ma azharahu llahu fihi walida qaala sayidna omar bin abdulaziz radiallahu anhu asbaxtu maa li sururun illa mawaqia alqadari فلنرجع يا إخواني إلى الله بالتوبة والاستغفار فلعل الله إن سلط علينا أحدا فبقصورنا وذنوبنا والله المستعان اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بالذنوب ولم يكشف إلا بالتوبة فهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة وما نطلب أمامنا إنما تطلب أمامك والعمر قصير والزاد يسير والأمر خطير عصير والعيب كثير والناقد بصير إنما توفون أجوركم يوم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومن وصايا بعضهم وتستحق الكتب بذوب الذهب قال وهو في في سرير الموت أو في الموت أوصيكم بتقوى الله في السر والجهر وبقلة الطعام وقلة المنام وهجر المعاصي والآثام وترك الشهوات على الدوام واحتمال الجفاء من جميع الأنام وترك مجالسة السفهاء والعوام ودوام مصاحبة الصالحين الكرام فإن خير الناس من ينفع الناس وخير الكلام ما قل ودل وقال بعضهم واعلم أن النافع هو التقوى والسبب المنجي هو الإيمان والعمل الصالح دون الحسب والنسب فلا يغركم الشيطان بكثرة أموالكم وأولادكم ووفرة مفاخر آبائكم وأجدادكم أحدكم فأصل البول الماء الصافي الطيب والله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي واستحضروا جلالة مولاكم وراقبوه مع أنفاسكم يدمحل عندكم كل جليل وحقير واجعلوا المصطفى الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم أمامكم وإمامكم فإن الله ما أرسل إلينا غيره صلى الله عليه وسلم ووعد المتمسك بسنته عند فساد الأمة ما لا يخفى عليكم وما قال العلماء الأجلاء الأتقياء إن كان kaana min assunnati wa maa qaala huwa min baabin awlaa wassunnatu matlabu aljamii wa wa gayruhu laysa lahu min al amri shay walxaqu yuqaal fa in kunna muxiqiina laa yuciibu axadu minna ala al aaxari البيتان وهل ترك الإنسان في الدين قولة إذا قال قلدت النبي محمدا ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنما الأهواه عمد fa amati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ibrahima ibn haay abdullahi tijani ramadan al abrak sabina wa salaasamia wa alf hijriya leetar bi li tax baay bind ko mooy li waa Mauritanie di wax xawdu saani am na jamono bu jaaroon ci diggante yenn taalibe tijaan yu nekk foofu ak baay ak taalibe baay yi xawdul awal duñ dugguñ ci xawdu bii boobu duñu wax lu waral xawdu bii nag li ko waral maanaam coow la ci jublu ak xuloo ak coow li ko waral baay bi mu bindee raful malaam Muhammad Abdurahman Wul Hajj ku bàyyi fonk la ndax doomi abdullahi abdul te lijaasa bi bàyyam bindal bàyyi moom moo ko bind ci loxoom mag yi Mouhamadul Misri la waaye moom euh, du taalibe bàyyi dafa jàpp ne bàyyi taalibe bàyyam la bokk na ci njëriñam yi moom bokk na ci njëriñam yi moom li bàyyi wax moo ko junj ne ko war ngaa bind téere boo xam ne ci ci zawq xaas maanaam ci tariqa bi nga bind ko te loolu mooy surul akbar moom nga gis ci lettre boobu bàyyi di wax naan wax naa soo mbokku Muhammad Abdurahman aqaal allahu asratahu ne ko man daal yaatini waxtu muruuri nafsi bil xaatiri daafun shadidun xata ara anni laa atamassuk bi shay aw min hada alxabil ala ayati xaal boroom xam-xam la boroom xam-xam mooy am gis-gis ci xam-xam wàll gi dañoo tënku woon ci mazhab bi te ñoo xëy ndax xam-xam a ko sos ay borom xam-xam ci ñoo ci ne ba leneen lu ñëw lu uteeg liñ miinoon rek mën nañ koo dégg tey jii doo wax kenn ne ko ba bàyyi di oote pour beesal xabd coow amoon na ci fi mu ne kenn weranteetut ndax xabd sunna la wala du sunna bàyyi nag ba mu bindee téeréem rafal malaam man rafaa wa qabada aw man qabada uh, iqtidaan bi sunnati sayidil anam gis nga teggin bi unwaan bi ame ndax taggut ñiy xabd ŋàññut ñi xabdut waaye dafa wax ne rek ñii xabd di rafu ngir roy ci yonent bi bu leen kenn bu leen kenn yedd loolu rek mooy wax loolu rek loolu la téere bi tudd ba mbindee téere bi nag Muhammad Abdurahman moom dafa dem moom bind téere boo xam ne moom dafay kontur xabd ak téere bi comme ni ma ko waxee borom xam la am na gis-gisam ala ay xaal mu am ñoo xam ne dañoo contour fayda bi bugg a exploiter loolu am koo xam ne dafa dem bind xasida di taqriz téere bi bam ko jàngee am ku jël xasida bi xotti ko beneen taalibe baay bind xasida tontu leen xan muxtaar wul mujtaba nga xam ne ñu bari xamuñ ko te bu mu génnee àddina yàggu dara waaye doy na ko dayo li telmi di wax ne Seyyid Mohamed al Mishri moo ko ne Mohamed al Muxtaar xidma na bàyyi xidma boo xam ne kenn ci ñun manu ko woon mooy ku waxaan ci bàyyi rek mu tontu la ci wéyam yoo xam ne bu ko waxee kenn dootu ñemee tawxati ci xam-xam ak ci fasaxatu ak ci arabiya bu wér loolu moo doon taxawaayam kon mel na ni taxawaayi xasan bin saabit yonent bi sallallahu alayhi ko qul wa ruuxul maaka mu doon wax ne ajawtu muhammadan wa ajabtu anhu wa inda allahi fi zaaka alqadaa'u Ahmed Mahmoud Mahamad Kabir fii la ko xaddiya bi fekk waaye moom it bind na xasida toon Mohamed Abdullahi Wuli Sayid mu ne am ku nekkoon ci yeneen groupe bi di ko neexal naan ko yow rek yaa ngi ci jaaxal yow moom boo waxul rek doy na mu ne ma wax ju du dëgg ndax Mouhamed Mokhtar moo ma dàq way te moo gën a xiis ci ñoom ci man. Mouhamed Mokhtar moo waxoon ne ana al abdu abdi cheikhi la min qabilatin nachatu walakin xubbuhu wa salaati wa abudu rabbillaha lallaata laa wala sujuudiya lil uzza wala limanaati hmm. ndeysaan coo loolu nag moo tax baay bind leen leetar bi ne leen bàyyi leen cool yi muñ leen sax bu ma kenn tontul bu ma nangam bu ma kii ku ko dégg da ngay foog ne nag waroo tontul nag sa sëriñ bàyyi ootewut xeex ootewut kii waaye nag waxtu woo xamee ne nit ki dafa jug ngir xeexal dëgg loolu du bakkan waaye leetar bii la leen bind pour delloo leen ci ci sago loolu mooy sababi leetar bi leetar bu méngoo ma yar yu bari la yoo xam ne nit mën na ca yaroo fa amat caane radiallahu anhu wa rahima anhu wa rahimahu wa radi anhu mas fee ñëw fekk ma ma ma téye ko may jàng leetar bi boobu nekkul ci ci téere sax mu ne ma lii daal gan goo amati boo koy xew war nga ko cee boole ndax yar bi ci ne kon nag ñu ngi koy jox gan ñi ndax ñu ngi ci abral asir di ñu dégg waaye ba dañ koy jox gan ñi ñi séddoo ko ñu ñu dëkk fii ci Medina gannaaw alhamdulilahi rabbil alamin rahman rahim maliki yawmi ne yàlla mi nga xam ne mooy bind lu ko neex tey tànn lu ko neex te xiw lépp mu ngi ci lim tànn ñu ngi koy sant ci xaali toroxlu ak lottu ak mokku ak tële ñi ngi koy jéggalu ci mbooleem yëkkatiku yëkkatikulu ñi ngi koy jéggalu ci mbooleem naw sa bopp ñi ngi koy jéggalu ci mbooleem rëylu ñi ngi koy jéggalu ci mbooleem gàttañlu ñi ngi koy jéggalu ci mbooleem topp bakkan ñi ngi koy jéggalu ci mbooleem bàkkaar yi ñi ngi koy jéggalu ci mbooleem sax ci bàkkaat ñi ngi koy muslu ci mbooleem xay suñ bakkan yi ak mbooleem xay ak mboolem boromi xay yi ñi ngi koy muslu ci sëlb gannaaw joxe ñi ngi koy muslu ci atte bu ñaaw ñi ngi koy muslu ci ndokku noon ci notak noon yi julli ci yonent alayhi wa sallam nga xam ne moo mottali yonent yi di ilimaani ñuy yónni ñi di sang di jaam ak boromam bi nga xam ne moom la tànn julli ci aale yi ñu laab ñi ak saxaabaam ñu tànn ñi ñi jiitu ci ñoom ci muhajirin ak ansaar yi ñoom ñi nga xam ne ñoo taxawal diine ji dimbale diine ji dimbale yontu bi sallallahu alayhi tasaare diine ji ci mbooleem gox yi ci mbooleem wàll yi ak tim ci képp koo xam ne nii daf leen a topp ci rafetal ci mbooleem jamono yi gannaaw loolu bàyyi ne lettre bi mu ngi jëm ci suñ soppe yi nga xam ne ñi ngi dëkkee ci agal mooy mantiqa la ci wilaya Trarza lu mel ni Maata Mulaana Tumbiyaali dëkk yooyu bu Boubacar dëkk yooyu yëpp Euh, àggal lañ koy wax ba rey na mu ne lettre bi ci soppe yi dëkkee foofu la jëm ak ñu dul ñoom tim fu ñu mën a nekk kon mu ngi jëm ci ñun ñëpp tëg waaye comme wax ji ñoom la gënoon a concerné mu wax béykat bay bayti bi shaayir bi wax ne maa ngi nuyoo nuyu boo xam ne mu ngi mel ni xetak dër jardin boobu suba teel boo xam ne nii dafa taw ba muy nokki nokki gu ànd ak ngelaw yi suba teel googu ak seddaayi ndox moomu xam nga ngelaw loolu nu mu neexee mu ne maa leen di nuyu nuyoo bu neexee noonu wala nuyoo bu mel ni soppe boo xam ne gannaaw bu ko soppeem tongee daf koo jokkuwaat gannaaw bu mu ko bàyyee jokkuwaat ko ni muy neexee ci moom maa ngi leen nuyu bu neexee noonu loolu la Ahmad Fall bin Baba moo ko wax woyam la mooy Mouhamed Fall mi bàyyi di tudd wa mahabbatu Seydi Mouhamed Fall maa ngi leen di nuyu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gis nga bàyyi fa toppatoo xam-xam lool toppatoo saqaafa Mauritanie xususan saqaafa te alawi ne dam leen yónnee leetar bi jëm ci moom daf leen yónnee bayt boo xam ne ci ñoom la jógee Faal boobu mooy maam yi ba wala Abdallahi bi nga xam ne mooy borom xam-xam bi ci nu baax yo tey moo wax bayt boobu ñaan na yàlla nañu yàlla dëppale ñun ak yéen ci lim bëgg te gërëm ko te yàlla na yàlla faj suñu xol yi feebar yi gannaaw loolu maa ngi xamale ne man dëgg-dëgg am na njàqare métit bu mag ngir li may dégg ci ñàkk déggoo bi dox seen diggante ak seen diggante mbokk yi ak seeni dëkkandoor yi ak seeni giid ak ñenn ci yéen di tàbbi ci xaatir yi ñenn ci yéen dañu ma di xéemu ci bërik ñenn ci yéen ni ñuy faalee liy jugee ci ñenn ñi ci ay wax ci ay jëf ak sax di jëflanteeg ñoom ci loolu te xam ngeen ni ki def dëgg-dëgg kiy def dëgg-dëgg mooy yàlla te yàlla mu ne waruñ koo tawat bu defee waruñoo gaaral ay atem waaye daw leen ko jëm ci moom kuy daw kuy daw yàlla foo jëm ci yàlla rek nga mën a jëm mooy la Seydina Amar waxoon afiraara min qadarillahi mu ne ila qadarillahi kon daw leen yàlla jëm ci moom yàlla boo xëy ne wa yuxazirukum allahu nafsa boo koy daw foo jëmaat ci moom rek ngay dem noonu ngay daw di dem ci keneen waaye yàlla moom boo koy daw ci yàlla rek ngay dem ngay daw yi ko naqat yi jëm ci yi ko neex rek waaw wéeruwaay amut muccuwaay amut ci yàlla lu may delluwaat ci yàlla te bàyyi mu ne toppanteeg amatu yi amati naas yi toppanteeg ñoom ci liy jugee ci ñoom ci suura maanaam loo xam ne ni ci zaahir da nga gis ne ci ñoom la jugee bàyyi mu ne di ci toppanteeg ñoom sax benn ñaar yi rek nga mën a def benn yow tooñ nga benn wala wala nga weddi yàlla lu tax bu fekkee ne da gis ne yàlla moo def nga tourné di ko jàppee waa ji kon yow tooñ nga waa bu fekkee da gis ne yàlla defa tut waajee def bu boobaa weddi nga yàlla moo tax mu ne mu axazatu naasi bi maa yajri minhum suratan imma zulmun aw kufrun jàppee nit ñi daal liy jugee ci ñoom ci zaahir benn mu nekk tooñ wala mu nekk kéeféer li koy def kéeféer mooy nga jàpp ne yàlla defatu du waajee def buy tooñ nag mooy nga jàpp ne yàllaa def ba pare nga yow nga ci topp waaji mu wax wax ji ibn Ataa'illaah moo ko wax dana xoyofal ci nit ki nattu mu xam kii nattu mooy kan jaam li koy oyofal natt mooy mu xam natt bi fan la jugee mooy woy wi mu waxoon ne danaa wax woy woo xam ne dañ koo waxoon mu ma waaye mooy sama xaal iza kanat al aqdaaru min malikil mulki fa siyaani indi maa yasuru wa maa yabki loolu bu kawe de bu fekkee ne dogal yi ci yàlla mi moom nguur lay jugee waykat bi ne yi ci neex ak yi ci naqadi ñoo ñoom laa xemale bàyyi waxaat ko ne maa ngi wax la waa ji waxoon waaye mooy sama xaal waaye loolu mooy wax ji dana xoyafal ci yow nattu boo xamee ki nattu bi jugee fan la bàyyi na na ngeen wéetal seen jubluwaay mu ñeel yàlla na ngeen dagg xool jëm ci leneen lu may moom na ngeen gërëm ay atteem bu boobaa ngeen matal noflaay ci àddina ak ci àlaxira nit ñi nag boo ko seetee ci dëgg-dëgg seen tagg ak seen xas yëpp ñoo yem seen tagg ak seen xas yëpp ñoo yem léeg-léeg sax kuy seetal seen sa bopp seen xas man laa gën a jëriñ ndax am na koo xam ne mu muy góorgóorlu tuuti buñ ko buñ ko taggee mu gis boppam te gis sa bopp moo gën a garaaw ayib bi la waa ji waroon a ayibalee te neewut ci yow buñ la ayibalee nag loo xam ne nekkut ci bàyyi nee na xam bi yàlla xam ne nekkul ci yow na la doy ak xam gi nga xam ne nekku ci mu ne yooyu bu la doyut nag yow sa xaal boobu moo gën a garaaw li la waa ji di xase te buñ la xasee luñ la mën a xasee te du dëgg santal yàlla lu tax ngay sant yàlla mooy ne yow manki moo doon sa cosaan yàlla bu la baaxee ba manki bi doon sa cosaan feeñu ci yow dañ koo wax rek waaye yow du du duut loo bindoo boobaa loolu na la doy bu la loolu doyut xam ngi yàlla xam doyut la bàyyi mu ne xaal boobu nga nekk moo gën a la waa ji di xasee toppatoo xaal boobu faj ko moo gën a moo ëpp solo ci yow léeg-léeg ñu xasee loo xam ne du dëgg mu naqadi la li la ci war a wettale mooy mooy du dëgg waaye li la ci war a waat mooy li ñu la xasee te du dëgg comme naqadi na la bu doon dëgg nag loolu war naa nekk waat ci yow pour loolu lii xasee nañ la ko mu naqadi la te du dëgg léegi bu doon dëgg nag kon mu gën a ñaaw nga fexe ba loolu bu mu dëgg ndax ki lay xas moom li mu jàpp ne mooy wàññeeku yooyu lay gis moo tax di leen déglu léegi baax na leen déglu léegi-léegi di dégg seeni wax baax na bu fekkee àgg nga foofu ndax mooy ñoom liñ jàpp ne wàññeeku la rek gaawantu nañ wax ko ci yow loolu nga bàyyi ko xel yow waaye fil xaqiqati seen tagg ak seen xaste yëpp ñoo xem ndax seen tagg man laa jëriñ seen xaste mënu laa loor ndax daaru naafiu wallah te seen xaste sax léeg-léeg mu jëriñ la ndax boo ko muñee yàlla éegal la ndax moom lay jàngale ci kanam yàlla gana a xam xaali te yàlla doy na seede amma nag di delloo sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xam nga ki ñu war a delloo mooy lu bokkut ak sunna waaye ku def sunna nga koy tontu ci loolu ak di ko jam ci loolu bàyyi na daal loolu daal ku am diine ko am xel donte xale la warta soxlawoo loolu moo tax ku noppi ci loolu bañ a xuus ci wax ak ñooñu wala tontuwanteeg ñooñu ci nangul leen wala dàgganteeg ñoom kenn waru laa yàdd sax ci sa noppi googu maanaam bàyyi ko mu dem rek amul solo yàlla nee na boo gisee ñi nga xam ne dañuy xuus ci suñuy kawteef yi maanaam di weddee gaaral na nga leen dëddu bañ dugg ci beneen waxtaan boo xam ne duul waxtaan woowu bàyyi ne bu fekkee nag ñenn ci ñun dañuy xas ñenn ci ñun te gis ne sax am nañ am nañ lefu yaatu buñ mën a xasaatee ndax bëri ñaawtee fi ki ñuy xas ki ñuy xas tim bugg a fayeeku te amul lu mën a fayeekoo lu may fen bàyyi mu ne gisuma man lu may lu may noppi rek ak jébbalul yàlla mu ne nit ñi nag comme ni ngeen ko xamee am na ci ay ñu dëgër ay boromi xam-xam ay wéykat ay boromi diine jaamukati yàlla ñu jub ñu mucc ci ayib yi mu ne ñun ñun ci axe melo yooyu yëpp lañ nekk wala ñu gën a bari ci ñun ci axe melo yooyu lañ nekk kon dara dara desul lu may ñi muñ rek te yàlla nee na bu ngeen muñee muñ moo gën ñeexal way muñi yàlla nee na muñal doo muñee lu may ci yàlla yonent la koy wax bul jàq bul nekk ci xat-xat ci liñ lay pexeel yàllaa ngi ànd ak ñi ragal yàlla yàllaa ngi ànd ak ñi nga xam ne ñooy way rafetal ñi yàlla wax na ne tim yàllaa ngi ànd ak way muñ yi yàlla wax na ne yàlla dana fay woy muñ yi seen yool ci lu duhut xisaab ci ñu duhut ñu koy daytal di ko limité ci dara ci lu amul fu mu waxaat xikma bi ne say ñaawteef amul fu em bu fekkee yàlla daf laa delloo yëf say tagg du jeex mukk bu fekkee yàlla dafa feeñal teraangaam ci yow maanaam bu desee lu may luy jugee ci yow rek sa ñaawte amul fu mu am boo amee luñ lay tag bu amee bu bu yàlla feeñalee teraangaam ci yow nag liñ la war a taggee amul fu mu am kii jëriñ kii lor di jëriñe yàlla rek la kii yëkkati kii suufeel di yëkkati yàlla rek la kuy maye di xañe yàlla rek la te bàyyi ne wettalikoo yàlla ak wettalikoo mbindeef yi duñ daje kon jàpp leen leneen lu may yàlla mu mel ni lu amut ngir seen waxtu teey seen wéttalikoo yàlla it mën a xam alquran nee na bàkkaati kenn du jot keneen ku ko defut nit ku nekk amut lu may lim dox lim jëf te ku nekk li nga jëf da ko gis mu wax wayam wi nga xam ne moo ko waxoon ca pour juzaam bu njëkk ba ruuxul adab ajral aza minhum li allaa tarkana ilayhimu bu yàlla di indi loraangeeg noon yi ci yow ñi lay lor xikma bi mooy ngir nga bañ a sukkandiku ci ñoom waaye nga sukkandiku ci yàlla ndax nag boo sukkandikoo ci sa morom mi mindeef moo xam ne yow mi koy sàkku ak moom mi sàkku yëpp da ngeen a tële ñaar ñu tële kenn mënu cee dimbali kenn atte bi baax yàlla la ci jaamam yim bëgg a tànn mbindeef yi lor leen rawatina fi ñu woon ndimbal lañ leen di lore ngir ñi naagu ci ndimbali ku dul yàlla buñ naagoo ci ndimbali ku dul yàlla la leen pay yàlla bi nangul ne leen yéen fi mu nekkoon jaami pay bi ngeen pay bi door leen a tànn loolu rek la yàlla jublu ci tànnee fam yi ñi leen di lor pour ñu bañ a sukkandiku rek ci ñooñu xam nga ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku nekk war bëgg na ko bokko ku nekk bëgg naa dëkk ak moom moo gën ci dëkkandoor moo gën ci mbokk moo gën ci baay moo gën ci nijaay moo gën ci doom moo gën ci jarbaat moo gën ci jëkkër moo gën ci maam gën ci lépp te aw nitam waxuñ lu may loolu kon luñ ko doon noonooye pour mu dellu ci yàlla rek jaam yàlla yi tànneef yi wàllu yàlla yi yàlla indi na ñi lor ko moom ci boppam te moom mënuñoo àgg ci moom waaye jéem nañ koo lor ci làmmiñ wax ci moom am na doom am na jabar dégg nga ay yàllaa fi ne dafa nay bañ gëx ay loxoom pour wàllu yi lu ñu leen def ñu xam ne seen borom la njëkk a wax ñu am lu ñu wettali ko bàyyi nee na wàllu yàlla yi seen tàmbali nit ñi dañ leen di noonoo pour ñu dellu ci yàlla pour xeeyo yàlla yàlla yàlla tànn leen buñ demee ba seen digg ni ñu jublu leen lool buñ demee ba seen mujj nit ñi am ci ñoom ñaari xaaj ñii bëgg leen lool di wax ci ñoom lu baax rek ñii bañ leen lool di wax ci ñoom safaan rek buñ xoolee ci ñi leen bëgg sant yàlla buñ xoolee ci ñi leen bañ muñ ñi am yooli sant am yooli muñ bàyyi mu ne nañ wax ci làmmiñi xaal ak nañ ko waxta muy suñ xaal ne xasbuna allahu wa ni'mal wakil bàyyi nee na mbóot yëpp nga gis sëriñ si ñoo ko tarjuma liñ tarjuma tarjuma wuñ ko ci seen bànneex bakkan ñey sëriñ si waaye ay ilhamaati rabbaani la ilhamaati rabbaani du jeex bu wax yu jeexee tim wax yu ilham ju jeex kon lañ tarjame it luñ jo lu lu jara bàyyee xel la waaye mu ne xasbunallahu wa ni'mal wakiil moom yàllaa ko tarjama yàlla moo wax li muy jëriñ fan qalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yem sa sum su wa tabaw lool mooy tarjumaay suru bi wax nañ ne yontu bi badrin loolu la doon wax wax nañ ne ibrahima alayhi salaam mu ngi ci asar bañ ko dugalee ci safara xasbunallah wa ni'mal wakil la doon wax bàyyi na na dimbalewuñ wàlliyu ma nusira waliyun illa bihi dimbalewuñ benn wàlliyu lu may ci xasbunallah wa ni'mal wakil lañ ko dugal bàyyi nee na bu kenn aji sopp di ma jéege di ma jéem a jege ci jéem faral ci kaw keen fa yaraasi rek ci wax wala ci jëf ndax man am naa xam-xam mi yaqiin bu óor ne mindeef du ma lor am naa xam-xam bu óorit ne mindeef duut mooy ki may jëriñ maanaam wér na ma ne daaru wallah war na ma ne wallah xam nga loolu waxoon na ko mag ñi ci commencement ba dégg naa ci làmmiñu ku dul wax nar ne mbindeef mënumaa lor tey nag dafa wax ne am na xam-xam bu wér ne mbindeef mënumaa lor mënumaa jëriñ sama yaakaar ci kenn rek laa ko aj mooy ki nga xam ne yonantu yi ak wàlli yu amuñ daara lu may ñaan ko mooy yàlla tabaaraka wa taala bàyyi na ñaan leen yàlla gëm yàlla ne yàlla may gëm yàlla ragal leen yàlla yàlla yërëm leen yërëm leen ñifi fi suuf ñi leen féetee kaw yërëm leen mu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax ci réer daara koo xam ne dafa bëgg a feeñal ci waxtu lu uuteeg li yàlla bëgg a feeñal ibnu ataay ko wax moo tax mu ne Seydina Omar ibnu Abdul dafa dafa ne man daal mujj naa aw ma dara lu may kontaane lu may tabbi waayi dogali yàlla yi maanaam lu yàlla dogal daal neex ma la waykat bi wax moom la waykat bi wax kaanatil axdaaru bi malikin an indi ma yasurru wa ma yubki bàyyi ne mbokk yi nañ dellu ci yàlla ci tuub nañ dellu ci yàlla ci jéggalu ko amaana yàlla bu fekkee dafa sonju ay noon ci suñ kaw ci suñ gàttañ lu la ak suñ bàkkaat yi te yàlla rek mooy ki ñuy dimbali ko bindoon na ko beneen lettre ci coono yaxyaal ne ko ne ko maa yusibu nii wa yusibuka min al aadaai adabun rabbaniyun li may jot di la jot ci noon yi yar bu ñu yàlla di yar la yar bu yàlla di yar yar boobu ku ko dégg fay def ci yow ni ki jël urus bi dugal ko ci safara si mu mel ni safara daf koy lakk te fekk daf koy gën a sellal tàggale koog tàggale ko ye ca bokku ci noonu la yàlla di def ak jaamam yi sonju ay noon ci seen kaw duur pour lor leen waaye pour ñu gën a sell rek la ku wax ci jaam yàlla lu ñaaw ba jël ñaaw teefam yi xam nga ne kooku da ko doon taqal far far far laabal ko ci jaam yàlla yu ñaaw ba jël ñaaw teefam yi da ko doon takkal far gën koo setal ku wax ci jaam yàlla lu ñaaw ba delloo ko ci yàlla da ko doon soril waaye da nga koo gën a dimbali ndax may nga ko mu daw jëm ci yàlla loolu la imaamul Junayd di waxoon jazallahu ixwanana xayran radduna bi jafaim ala allahi na yàlla fay te ixwaan yooyu muy wax noonu yi la du tere mu nekk mu dekk sa mbokk ndax bu fekkee yàlla wax ne in taifataani min almuminin aqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baxat ixdahuma ala alxura fa qaatilu allati tabgi xatta tabiya ila amrillah fa in faat fa aslihu baynahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin innama almuminuna ixwa yooyu terewul ñu nekk mbokk moo tax imaamul junayd ne yàlla na yàlla fay suñ mbokk yi xiw maa te noonu yi la si jublu ndax bañ ñu tongee dañoo may occasion dañoo delloowaat ci yàlla ñun dañoo yar ñun ñu dellu ci yàlla moo tax bàyyi ne amaana bu yàlla sonjee kenn ci ñun rek ci suñu jëggaatañu la ak suñuy bàkkaat tuub rek bu waa dellu ci yàlla moo war a am moo tax mu wax la abbas waxoon ba ko seydna waxee ne daan nañ daan nañ yàlla daan nañ ñaanee ci sa barke yonentu taw nga ñuy tawal tey ñi ngi ñaan yàlla ci barke sa bàyyi tax yonentu bi nga tawal ñu xam nga ñi nga xam ne liñ di am na ñoo xam ne liñ déggee loolu mooy ne Seydina Omar jottaliku wut ci yonantu bi ndax yonantu bi dee na moo tax mu jottaliku ci Abbas waaye boo dégloo wax ji da nga xam ne yoon Seydina Omar jottaliku ci Abbas ngir Abbas dafa jottaliku Abbas ngir Abbas xam mu yonantu bi la wal yawma nastasqika bi ammi nabiyika Abbas loolu mooy ñi ngi jottaliku ci Abbas mu jottaliku ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam waaye abbas ba ko waxee loolu moom it dafa wax ne yow yàlla bàkkaat yi wàccut natt yi wàccut lu may bàkkaat yee ko wàcce te duñ ko dindi lu may tuuba koy huññi kon ñu ngi tuub dellu ci yow suñuy dox ngi nii yësal nañ ko tuub ci yow tawal ñu ba mu ko defee leen yàlla tawal xam nga ko am ndab bëgg ñu defal la ngay raxas ndab li ku am ndab bëgg ñu defal la ngay raxas ndab li waaye indi sa ndab bëgg ñu defal la te mu ngi taq la ci defalee meew sax mën naa am doo ko naan moo tax am na may yoo xam ne gàttandu ci yàlla dafa laaj laabal sa bopp mooy tuub bàyyi ne bàyyi ne ñun li ut mu ci suñ kanam yow jaam bi li ngay ut mu ci sa kanam dund lu gàtt la dund àddina tey jii fan rek mooy téeméeri at téeméer nangam boo wax boo ko seetee it gàtt na ndax jeexalul jeexalul mébéti doomi aadama yi mébétam yi àlaxira lay lay jeexee mu déggoon naa ku ne àddina njéem a ba njéem a la tudd sant ba jéem jéem rek ba kon loolu guddut dund bi gàtt na sa yóbbal bi néew na te mbir mi lu tat la lu jafe la te bàkkaar lu bari la te yàlla mi nga xam ne moom mooy yëddu bàkkaar yi aji gis la te yàlla wax na ne yàlla daa leen fay matalal seen yool yowmal qiyaama képp koo xam ne nag yàlla soril na la safara dugal la aljanna kooku texe waaye dund àddina xéewal yi bànneex àddina ay xor rek la ndax dafay niru bànneex waaye bu ci nekk rek mu jëm coono la waaw bànneex àddina bu ci nekk rek mu jëm coono la seet ko bi bànneexi waxambaane bu jëm coonoy màggal rek la waaw bànneexi jour sax coono la fi ne nit ñi buñ ooree dañuy dañuy oyof waaye buñ dogee ba naan nga gis ñu commencé man de waaw dara yeneen bànneex yi noonu waaw mu ne bokk na ci dénkaane ñenn ñi dénkaane boo xam ne xeeyoo nañu bind koog ndoxam urus dahaay urus fekk mu ngi mu ngi ci lali muy dénkaane ne maa ngi leen di dénk ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb maa ngi leen di dénk néewal lekk waaw xam nga or néewal lekk rek la yontu bi sallallahu wax na ne maa mala ibnu aadama charran min batnihi doomi aadama feesalut lu gën a bon lu gën a bon feesal biiram jàngoro yu bari ci lekk ba ne suur këll ci lay jóge tey jii scientifique yi docteur yi génnee nañ ay xam-xam yu bees ci wane ne nit buy toog di lekk lekk lekkam fukki waxtu ak juróom-benn loolu gis nañ ne tey jii dafay faj feebar yu bari ndax jàngoro yi nga xam ne mu ngi ci biir doomi aadama am na ci yoo xam ne li nit kiy dundee ci lay dundee bu nit ki dundee ba am doole mooy mu dund ba am doole te góor ñi ba ñuy digale xillatu taam ñoom boobu ñu ngi ci jublu rek pour nit ki am sawari jaamu yàlla ndax lekk ba suur nelaw rek am na ñoo xam ne dañuy lekk ba suur door a sawar ak yooyu pour kii waaye Cheikhu Tidiane dafa am taalibeem boo xam ne dafa ñëw Cheikh Tidiane di ko jàmbatal ne moom dundal guddi daf koo jafe Cheikh Tidiane ne ko da ngay essayer di lekk benn yoon ci bés bi te lim ko digal noonu moom la doon def moom Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane onze heures ci bëccëg wala dix ci bëccëg la daan lekk lu gën a teey dootu lekk ba waxtu woowu del seet mu Musab ibnu Mahzuz mu ne ba ko Cheikhu Tidiane waxee loolu mu commencé daal métti woon na ci moom ndax bakkan moom comme xale rek la waaye book ko ferelee mu fer li bu sëriñ wax waaye mujj gi gis na ne miin na ko te oyof na ci moom muy muy jaamu yàlla muy dundal guddi ndax li tax sa diggante guddi mooy boo suuree eh, rek nelaw dafay yombu ci yow waaye bu biir bi feexee xoole dafay yomb moo tax kii xanaa di digale qillatu taami waaye mu ngi ko jëlee rek ci dénkaane yonent sallallahu alayhi wa sallam maamala ibnu aadama charran min batnihi wa qillatul manaami ak neewal nelaw xam nga nelaw yu bari am na ñu am na xale yu bëri ñoo daan raw ca classe ba waaye bëgg nelaw suba teel rek moo tax ñi leen gën a naqadi xel raw leen bëgg nelaw guddi ñàkk révisé noonu ku bari nelaw doo jàng ku bari nelaw doo jaamu yàlla ba tey mu ne maa ngi leen di dénk ngeen tongu mooy yàlla yi da ko yontu salaay salaam waxee al muhaajiru man haja ku gàddaay dëgg ku gàddaay li yàlla bàyyi mooy yàlla yi ak bàkkaat yi ak bàyyi bànneexi bakkan yi ci lu sax ak enu nag loraangeeg nit ñi ak seen ak tong mboolee mi nit ñi bëddi sidina moo doon waat jarbaatam cheikh ahmadu doomi cheikh ahmadu xaafis ne ko inna siyaadata fi snatayni fala takun yabna almashaayixi anhuma bizahidi xamlu almashaqati حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعد قل الذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد mu ne ko ak càng ci ñaar la nekk ne ko maa ngi lay dénk yow doomi sëriñ si ñaar yooyu bu ko dëddu mukk mooy nangoo enu coono ak nangoo muñ loraangeeg mbindeef yi ne ko ndax ku waggu bëgg a jëm ci kaw dëgg-dëgg bokkut ak ki toog ci suuf kii moom mu ngi toog jéemul kenn moo pare na du sonn waaye ki bëgg eeg ci kaw moom waggu waggu sax fi muy commencé mooy ne noos gi nga doon noos sol mbubb mu gudd mu rafet boo xam ne dara du ko yàq génn nga ci parce que da ngaa pare pour jànkuwanteeg coono ndax da ngaa bëgg a xéeg kaw ne ko maa ngi lay xamal rek ne waxal koo xam ne dafa soxla teraanga ci lu duhul ñaar ñi ne ko mu ngi mel ni yaa ngi dóor weñ pour damm ko te weñ ngaa weñ ngi sedd weñ boo ko buggee boo dagg da koy tàngal waaye door weñ gu sedd ngay dóor ba say loxo futt rek weñ gi mel ni meloon moo tax ixtimal jafa jamil anami ak bàyyi toogaaleeg ñi doye di ñi bàyyi xam nga wax na ne maa qattu jaalastu safiyan wala ma asab siwa fuxuuli qawmin ulama masuma toogaale ku doyadi masuma ànd ak lu borom xam-xam yu kawe yi ku yi borom xam-xam yi ak saxoo nag ànd ak yi ndax léppay wàllante talaaxu dafay wàlla salaaxu di wàlle ku ànd ak saalihin yi rek bokk ci ñoom xaji ahlu kahfi bi sax ànd ak ahlu kahfi moo tax yàlla tudd ko fa mu leen di tuddee ci alquran ku bëgg a bokk ci saalihin rek ànd ak saalihin yi alxayru kulluhu fi soxbati wa charru kulluhu fi soxbati mbay nee na xiw lépp a ngi ci àndoo waaye xay lépp a ngi ci àndoo ku bëgg a baax àndal ak ñu baax ñi kuy jàng àndal ak kuy jàng ku bëgg jub àndal ak jub waaw ñi bëgg xaalis sax ñi liggéey ci xaalis la ñuy wax ak ñoo leen mën a jaayal ñoo mën a jënd ci ñoom ñoo leen mën a dolli xalaat mu ne nag ba tey ci dénkaane waa ji mu ne waaye ku gën ci nit ñi mooy kuy jëriñ nit ñi wax yonent bi la sallallahu alayhi gën ci wax mooy bu néew te jëriñ te le kenn ci ñoom mu ne wax na ne xamal ne ba tey ci kenn ci borom xam-xam yi xamal ne lii jëriñ mooy ragal yàlla sabab si musal mooy gëm yàlla ak jëf ju baax walis sa askan dégg ak fa nga bokk bàyyi ne leen nag yéen seytaane bum leen lor bu leen xor balay ci de bu leen xor ci bërik seeni alal bul xoru ngir ne am na alal bum la xor ci bëri say doom bum la xor ci bëri puukare yu say baay say maam bàyyi gannaaw ndax cosaan tegtelahut ne cosaan gu baax tegtelahut ne borom cosaan gi baax na ndax mu ne saw ndox mu sell la woon bu teey te xam nga ne tey sell saw borom sax bëggul mu laal ko ndax bu paree weesu ci keneen moo ko gën a bañ te cosaan li cosaan lu sell la woon mu ne kon sama cosaan baax na ba loolu bu mu la xor fexee la baax yow cosaan bu baax bu mu la xor ndax yàlla wax na ne yàlla dana génnee kuy dund ci ku dee maanaam génnee ku gëm yàlla ci ab xéeféer génnee xéeféer tim ci ku gëm yàlla baay ne leen teewlu leen màggaayi seen borom ki yàlla na ngeen fuglu yàlla ànd ak seen nokki yi maanaam nokki gu ngeen di nokki rek bu yàlla absente ci seen kanam boobaa lu mag ak lu ndaw lu mën a nekk rek dana dana dana dana jeex ci seen kanam jëf leen Moustapha Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam teg leen ko muy nekk ci seen kanam nekk ci seen di ilimaan ndax yàlla yónni wuñ ñu kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy tontu bi lim commencé woon boobu ba léegi rek mooy muñ leen tegu leen ci yoon muñ loo leen dégg nga baax leen waaye lii mooy tontu ki nga xam ne mu ngi doon tontu ci kiy bind ci xabd mooy ne yonent bi sallallahu alayhi mooy suñ ilimaan te moo nekk ci suñ kanam moom lañ ko war a def tim te yàlla yónni wuñu keneen ku moom ku dul moom te nañu ne xam nañ dig bi yàlla dikk ñi nga xam ne ñooy téye ci sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waxtu woo xamee ne umma bi yàqu na loo xam ne dara réeru leen bàyyi ne bu fekkee borom xam-xam yu mag yi ragal yàlla bu fekkee liñ wax sunna la li yonentu bi sallallahu waxal boppam kay rawatina maanaam li borom xam-xam yi déggee ci wax yonentu bu fekkee ne luñ war a ngoy la li yonentu bi sallallahu alayhi wa wax mu leer naññi loolu moom waxi nopp te mu ne sunna mooy sàkkuwaay ñëpp wala moo war a nekk sàkkuwaay ñëpp xanaa te ku dul yonentu sallallahu alayhi wa dara nekkut ci moom ci loxoom ci mbir moomu bàyyi ne nañ wax dëgg bu fekkee ay nit si dëgg lañ mu ne bu kenn ci ñun ayibal kenn mu ne waykat bi waxoon ne ndax nit bàyyi na ci diine wax bu fekkee ne dafa wax ne man daal topp naa yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ku wax ne yonentu laa topp daal kooku bàyyeewul bàyyeetul dara ci diine ndax moom lañ war a topp wax ne ba tey loolu ibnu Faarita ko wax wa naju sabili waadihun liman suma yoon reer na ñeexal ku jub waaye bànneex yi moo matale rek ba ba gumbaloo ñenn ñi ba gisuñ topp seen bànneex mu leen gumbaloo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ibrahima na xay abdullahi tijaani allahuma salli ala sayyidina الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر اللهم صل